Sonko dit que dootul demati devant la presse française mais loolu man du ma ci dóor sama caat Ousmane Sonko lan lay wax day wax rouge na nga xëy gis ko mu ne ver na vert laa waxoon Ousmane Sonko waxu fi ni mbiru góor jigéen àndu ci dëggalam déet monsieur Diaw monsieur Ousmane Sonko est anti góor jigéen nañ ko tuddee mu gën a rafet et contre borom ñaari tur yi. dëgg la da koy day sponsoriser maanaam mouvement yi xeex loolu maanaam nañu mouvement yi sàmm suñu candidat mouvement boobu tudd sàmm suñu candidat Ousmane Sonko xam nga leer na xam nga ma tur yi mais xam nga ñan la ok ñooñu du mbiru borom ñaari tur yi lañuy xeex Ousmane Sonko ànd ak ñoom ba mu nekkee maire de Ziguinchor kañ la njëkk a recevoir en tant que autorité le champion toute catégorie de la protection des droits des homosexuels moom mi nga xam ne mooy candidat sàmm suñu président suñu candidat ok donc contradiction de taille muy benn n'est-ce pas deuxième contradiction d'ordre moral mu may tax may dellu si concept li may wax ni la faillite morale de Ousmane Sonko Ousmane Sonko du dafa wax ni moom il est plutôt tendance buy julli day day day kii euh, euh, l'islamisme radical d'accord on est d'accord sur ça c'est un il est il est pro-islamisme radical ana ana ana ibaadu ak dem wuti 4 mai suite boote waxante dëgg baal leen ma de ana ibaadu ak di mbës ak di mbës lu bu fekkee ni dem nga bay war a mbës lu yow kat mais ya nga yow sa kër gënut a gënut a baax gënut a sell ah gënut a jege waa waa am na ku ko doon wax ni moom waa dash la gënut a jege waa dash nañu bàyyi caaxaan nañu bàyyi caaxaan parce que yéen ñi fi toog yéen ñii yéen ñëpp yàlla ma gën a xam la réalité mais na di bañ man tam je vous invite à ce que borom mbës bi ngóor si massage bu mu dox seen maayen dox seen xel ba ngeen ragal a dëgg bu leen ragal a àtte dëgg parce que yéen vous êtes témoin da ngeen fekkee fay lii moo fi nekk Et vous avez une responsabilité par rapport à vos enfants, au futur. Vous avez les futures générations, ils donnent leen laaj des comptes. Maintenant, question yi am na benn question boo ma wax question yi est-ce que mun nga ma ko rappeler parce que da nga ma poser quatre sponsoring bi article sur mesure question Ousmane Sonko xam nañu ni ko Ousmane Sonko bu gisee benn média français bu ñëw war ko defal un article élogieux region